jërë ngeen foo taal bu tëë tàkk wet gu ne nga koy uppee ñaar fukki mesure ak ñaar l'observateur ne nañu moom la état bu senegal génnee ngir dakkal accident yu bari yi ci réew mi ubbil yéenekaay bi dogal yi démb lañ leen jël ca ndajam conseil interministériel ga ñu gonte woon ca jam ñaajo ca dogal yi yéenekaay bi ne nañu bokk na ci arrêté bu ministère des transports war a génnee fii ñetti fan mu di arrêté boo xam ne la cay nekk mooy oto bu ñu indeete ci réew mi ngay def transport nit bu fi liggéeyee lu mat fukkeet ca la oto transport marchandise it ku ci liggéeyete ci réew mi fukkeet ak juróom ca la bokk na ca dogal dee ay nit nga yeb doo am permis bi li fekk amoo ñaar fukkeet ak juróom bu dee wata ba nga yor transport marchandise la doo am permis bi te amoo ñaar fukkeet ak ñett le témoigné nañu ginnaaw fukki commandement yi ñu fi waxoon ngir ne dañuy wàññi accident yi te mujjul fenn jëlaat nañu démb yeneen ñaar fukki mesure ak ñaar bokk ci mesure yu yees yi fi tifaaxan lii di porte bagage ak i Versailles bokk na ci taxawal ab structure multisectorielle bu ñuy dénk accident soleil national nañu mesures yi bi Sénégal jër ngir wàññi accident yi ëpp nañu ñaar fukki mesures ak ñaar ñaar fukki mesures ak ñett lañu journal l'info di ñu wax ci xët njëkk ne nguurug Sénégal génne na leraw gi ngir tàllal nu na rak ñi ci kaw tali bi te duñu doxal yoon yoon wi état bi jël ngir wàññi accident yi Sud Quotidien nee nañu ci ñaar la ko tënk benn moo di sensibiliser ñi séq transport bi xamal leen li ñu war a def ak li ñu warut def chauffeur yi accident bu miti ba am keroog ci 6 kilo ci yoonu Kaffrine wi Le nee nañu tiis waa ngay gën di dis gann ci askan waaye nag solidarité gu mat sëkk feeñ na ci ci ñi waneeg solidarité source waa mi ngi ñuy wax ne sang bu tedd ba ca Touba ràññeeku na ci ñeen fukki million moom la Serigne Mountakha Mbacké Bassirou xalifa général des Mourides génnee ngir jàppale ñu loru ci accident bi accident bu 6 kilo bi ñaari kaar yëmbëkkante enquête ba ñuy def ci a assurance am na it ay rëq-rëq yu enquêteurs yi gis ci visite technique bu ñaari bus ba tax ñi nga xam ne ñoo moom bus yi woolu nañu leen tey ji ci suba tey ci suba journal l'observateur dafa xëy seeti ay nit yoo xam ne accident de la moo yàq seen àdduna bokk ci ñoom waa ji di Mamadou Sarr dib chômeur bu toll ci fanweeri at ak ñaar nee na waa l'observateur keroog ba mu accidenté ab tànkam ci suufu kaar bi la ko fore mu ne li muy dund jamono ji miti tànkam mu hospitalisé ñetti at bi mu wéree ci la ko dàq ci fa mu doon liggéeye keneen ku xëy di defi ndénkaane ci l'observateur moo di waa ji di Mamadou Niang moo yore communication bu association gi ëmb ñu accident ci réew mi Mamadou Niang nee na ba mu accidenté ca la ñàkk loxo ndeyjooram ca la ko jabaram wanee ginnaaw ne dafa dem yóbbaale ay doomam ñu des ci kaw tali ba léegi waaye ci weneen anam journal Le Mandat ak la Sénégal ñoo ngi ñuy xibaar ko danañ ko goudronné yóbbu ko ba Linguère mu jaar Labgar xibaar bi yéenekaay yi nee nañu ñoo ngi ko siiwal keroog ci am ndaje mu Mountaga Sy maire bu Aéré Lao séqoon ak askan wa ca jéeri lu ëpp téeméeri chef de village ay conseillers municipaux ay kilifa diine ay kilifa aada kilifa àddina yu fekk baax tund wa yoon woowee ak ni mu meloon tiitaange ga ci askanu jéeri ji amoon léegi tey mu jeex ma jeexale ak histoire bu doy waar te yaram bi ñu doon atte ca tribunal flagrant délit bu Ndakaaru ubbil la bu amoon ab pàkk di ko tabax waa far ca kaso ba yéene bi nañu bi ñu koy àtte ci tribunalum Dakar jooyloo nañu bare ca saal ba ne Fatimata Njaay dane gis bi damay jigéen ju sësul ci kenn am juróom-benn doom fa ma dëkkoon luye fa dañ fa dañ ma faa génnee ndax damaa amee woon ay arrière location bëggoon naa jëlub néeg waaye fu ma dem ba wax ak borom kër gi bu xamee ne damaa yor juróom-benn doom du nangoo luye ab néeg procureur be kàddu yu mu yëkkati jagleel ko Fatimata Njaay yéene kaay bi nee nañu wax ma ni mbiri sama xol dafa tooy ba bi ma demee sama kër sax sama xel mi woon ci yow